yéen a ngi ñuy topp ci Fafa TV. Fafa TV am na nag lu sëñ bi junj ma ma xaw xawoon koo fàtte mooy boddiku wante ci biiru xeet ndax université bari ki démb rek maa ngi maa ngi moo sëñ daam am ngeen sasu rëy ndax université foofu loolu du place am dem ba ay euh, waaso di fa feeñ am ngeen sasu rëy kooku nag moom yéen ñëpp war a taxaw moom. ñooñu ñëpp xam naa dajale ndaw ñi. Mhm. xam naa leen ñoom ñëpp. jërëjëf waxtaan ak ñoom. raisonné leen. Mhm. Joola ak séeréer doomi ndey ak doomi doomi doomi bàyyi lañ mhm. ay doomi nijaay ak doomi bàjjen lañ. mosta am nag Joola bu saaga woon séeréer sax séeréer day ree. séeréer bu saagaa Joola Joola day ree. kon buñ demee ba rabbu euh, safaraawu boddikuwante ci biir xeet ba yóbbu ku ci daara ju mag ja musiba am na. taxaw leen tem ci gën a conscientiser ndaw ña bu ko defee nag laay bi mu wax ne wallazina isa asaabahumul baxyu hum yantasiruun wax dëgg yàlla bëgg suñ borom bëgg na lool le bëgg na lool lépp looy def nga teg ko ci kaw xam-xam waaye it nag bëgg na lool buñ demee ba jël ak mbeew teg ko ciw askan nga jóg ne déedéet du fi am loolu mooy hum yantasiruun seen jéego bi loolu rek la déedéet du fi am lii kat mooy mission wu yonent yi yëpp ñun nag ñu ngi ci seen gannaaw. ñu ngi ci ñu ngi ci ànd ak yéen bu baax waa góor. parce que dafa dëppoo. Mhm. li ñuy dund nii. exactement man dama doon sàkku euh, firi bi parce que mhm. firi. waaw dafa dafa sensible. dafa sensible plusieurs degré. waa góor compréhension la moo tax comme yow. yaa fi nekk moo tax ma buggoon nga firi. Euh, laaya bi sa mu baax yi. fu mu yan tax siroon parce que dañ ci teg wa jazaa sayyi'atin sayyi'atun misluhaa ah, maanaam lu ñaaw lu ñaaw li ne mel moo koy fay. Mhm. léegi nag dox nañu Sénégal bàyyi ma mhm. téel dox nañu Sénégal ba mhm. euh, ci kàddu sëñ Saliou mhm. dal dellu si ñëpp nangul ko li mu sàkku ci askan bi yàlla yàlla yàggal ko sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa lan laa wax léegi sëñ Saliou sëñ Muntaxa ndeysaan sax dama ko nam euh, sëñ Muntaxa euh, sàkku ci ñëpp ñu ñu dal ñu jéem lijjanti mbir mi ci jàmm mooy li gën moom nee na islaam diine jàmm la te loolu mooy li wér kon loolu kenn du ko bañ mhm. loolu mooy indi dal gi te daf may bàyyiloo xalaat tamit ci mhm. destu aaya gi mhm. wa man aslaha wa aslafa fa man afa wa aslaha fa ajruhu la maanaam ki nga xam ne dafa jéggale te rafetal wër pay moo gën fa yàlla jërëjëf waaye nag innahu laa yuhibbu zalimin waaw mais dafa ni ñi nga xam ne wala man tasra ba'da zulmihi ulaika ñi nga xam ni dañu riposte fayu. Hmm. gannaaw tooñ gi ñu leen tooñ. muy lu wér. fa wulaayika maa alayhim min sabiil maanaam. ak gor yoon. Hmm. du leen. amuñu problème ak yoon. ñoom teg nañu seen mbir ci yoon yoon munu leen àtte ci dara. jërëjëf. kon tey jii. Hmm. lor gi nga xam ni nguur gi teg na ko askanu Sénégal. ba askanu Sénégal génn def li mu def. jëf yoon waru ko cee topp. abadan. moo tax ñi nga xam ne dañ leen a tëj ci kaso yi. ñoom ñëpp a war a génn. dañ leen war a libéré parce que tooñ gañ leen tooñ. jërëjëf moo indi féttarlu bi ñu leen bi ñu féttarlu. Mhm. moo indi loraanga yi am. jërëjëf ba ñu jàpp leen ci. Mhm. waaye aay bi jeexewul foofu parce que joxoñ na ñu yoon war a dal seen kaw. innama sabilu yoon kay allazina yazlimuna nnaas. waaw wa yabxuuna fil ardi bi xeyril xaq. yaa koy firi. jërëjëf waaye sëñ kii sëñ Kile Dóor jërë ngeen jëf waaye sëñ Dame kon gën nañu kontaan ci ci ci ci yéen. waaw lii mooy constitution. Mmh. constitution dëgg mmh. euh, da koy fekk ci dënnu mag ña mmh. fekku ci dëndu xale ya dënnu góor ña dëndu jigéen ña laaya bi muy wax fi mu ne gune yéele yu góor yaag yu jigéen ya lii muy wax mu ngi ci seeni i dënn waaw moo tax am réew boo ko bëggee tabax da koy tabax ci lañ xam li nga wax lu ñu xam la maanaam yoon bu demoon bay dal danaan nañ seeti ña provocateurs ya hmm. comploteurs ya ña nga xam ne ñoo sabab lii yëpp hmm. yoon bu demee waaye ay bakkan root ci fukki bakkan ak ñeent hmm. ay waaye yoon buy seeti na seeti ñooña ndaw ñi nañ leen bàyyi nañ leen jéggal lii ngeen di def nii waree fu ñëpp la yal na yàlla sottal ko gudd na yal na yàlla sottal ko sant nañ yàlla lool ci yéen ñu ngi leen di sante yàlla lool it nag yal na suñu borom subhanahu wa taala wàccee ngërëmam ci liggéey bi ñun de am nañ yaakaar ci ne incha allahu sotti rek bu soobee yàlla yar na suñu borom sottal yéen a ngi ñuy topp ci Fafa TV Fafa TV